amis fidèles téléspectateurs internautes de Public SN TV salaamaaleykum ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy euh, diwaanu Pikine fii ci Arco bu Pikine alors ñu ñëw fi tey li nga xam ne mooy journée mondiale du théâtre tey dañuy ñëw waxtaanak li nga xamante ne moom mooy artistes yi comédiens yi ñi nga xamante ne ñoom dañuy yëngu ci wàllum euh, théâtre tey la journée mondiale du théâtre ñu ñëw waxtaan ak ñoom ñu xool li nga xamante ne moom mooy seen ay bëgg-bëgg ak seen ay jafe-jafe si lan la ñu waxtaanee ko fii ci Public SN TV maanaam sama caméraman Chimère ñu dugg ci biir centre bi waxtaan ak les acteurs léegi-léegi def ñu ngi Pikine nekk fi nga xamante ne moom mooy euh, Arco bu Pikine seet si ñi nga xamante ñooy artistes yi ñi ngi ak ki nga xam ne moom mooy Mass bu série Mariama ci journée mondiale du théâtre Mass nuyu nañ la ñu ngi lay fay ku baax lan nga ma mën a wax ci journée mondiale du théâtre tey waaw gannaaw ba ma sant yàlla di julli si yont bi di sant samay ñaari waajur Euh, di sant nag ñëpp nawet di wax ni journée mondiale bi nekk na bis boo xam ni bis buñ bëgg la bis buñ taamu la bis boo xam ne ñun acteurs yi ak comédiens yi ñoo moom. lan moo la sa àdduna ba ngay def théâtre waaw man nag euh, li ma dugal si théâtre mooy sama maam moo daan jàpp sama loxo di ànd ak ñoom saa neex di ànd ak euh, ci artiste mag yi man jàngkat laa woon mais damaa dem bu mujj gi su fu ma daan toog dama daan reetaanal nit ñi léegi nag ma am lu ma def nag mu def it nag du yéen a ngi ma soon a seeraan benn jour mooy vidéo gi ma njëkkoon a joué mooy ñetti gele yi tam doon wax man faatu du ma jox sama tur xanaa Aida e sor nañ dem boobu man maa ko joué mu def in nag leen gars yi naa ma pour naa def ay vidéo ba par la nag ma ne Louga nag laa dëkk may naa ñëw fii Dakar def théâtre arko Pikine arko Pikine euh, ki naan euh, Lébu Ndoy dañ naan joué fii euh, spectacle yi ñu joué Covid 19 et ses alliés à la barre mu joué ko bi may bi may njëkk a sur scène artistes mag yëpp ma gis ñu toog di ma seetaan may nag ma ñëw fi benn jour nag ñoom ñëpp ma gis ak nin toogee ak seen comportement ak nin mel ak silwisi bi ak nin sellee ak nin baaxee tamit yëg nit ma nag mbir bi nag Arko Pikine la xaaral def la tout nag pour ñëw nag Arko. maas ñaata série la bokk. waaw ah, série ma bokk nag ah, bari na nag bari na bariwul waaw mi ngi mel ni ah, la graine du pouvoir jeunesse ak nit ak jikkoom boo xam ne maa maa ngi principal bi bokk naa ci série mariyama si koor gi nag gérance yu bëri gérance euh, kër goro yi bokk si Taylor les familles Taylor bi bokk naa daal si yëpp daal li l'essentiel. ban série moo la gën a marqué yow ci sa vie. Euh, série gi moo gën a tamit gën maa neex tamit gën maa marqué euh, mooy série Mariama ndax daanaka si la ma nit xamee ak série goro yi bu ma si tegee boobu nag dama si teg nag série Taylor bi ndax gaa yi ñooñu ay jeunes lan tamit samay xarit lan ñoo bokk tamit la ñuy dund. ban message ngay jeune bi nekk këram war a def euh, théâtre ñu naan ko dafa bon baaxul euh, ban message nga waaw c'est que euh, le théâtre est le médicament des maladies gis nga théâtre dafa doon loo xam tey jii garab la goo xam ni sa xel mi la yóbbi léegi nag ñi ci bokk tey jii boo ci nekkul doo mën a xam tey jii yow lan mooy sa carrément lan mooy théâtre mais bis boo si duggee da ngay xam théâtre nii métier la c'est une métier man ak ñi ma xam ak ñi bokk ci affaire bi képp ku nekk ci millier bi na nga ci concentré wu nga concentré wu ci bu baax tamit nga nekk ci nga xam théâtre day fay te dafa am xaalis. merci kontaan naa ñëpp nag di ziar tamit naa suñu président muy Libou euh, di ziar tamit euh, euh, suñu président Leyti Fall di ko ziar di ziar tonton di ziar ñëpp ñoom jeenaa su ma limee damay juum maa ngi ziar ñëpp di wax ni télé bi mooy. waa public SNTV ca kaw ca kanam moo ko yor. noo def maa fi. noo gisee tey journée mondiale du théâtre bi fii ci Sénégal. waaw xanaa sant yàlla bu baax. di ñaan yàlla ah, at bu ñëw rek dàq moroom ma waaw. est-ce que tey euh, aar tey mu ngi delloo njukkal ñi nga xamante ne mooy ñoo ko bëgg. waaw waaw aar mi ngi leen delloo njukkal mi ngi leen delloo njukkal. naka la kilifa yu Sénégal gisee li nga xam ne moom mooy aar est ñoom ñi ngi leen di aussi bàyyi xel est-ce que delloo njukkal surtout gouvernement bu bees bi fi toog. waaw gouvernement bees bi xanaa di ko ñaanal yàlla rek mu dal ak jàmm xam nga parce que ñun euh, saa su ne ñu ngi ci ñu ngi ci kawam saa nekk rek ndax ñun aar dañoo judd fekk ko fi xam nga mu nekk métier moom ne métier mu noble mu nekk li nga xam ne euh, dina fekk ay ñi nga xam ne euh, dañoo dënkoon tey xam nga mu jubóole leen mu nekk la nga xam ne tey jii fu mu toll nii tey jii ñu bari ñu ngi daw dem di ko wuti mais tamit ba tey tamit dafa dafa am dafa am lu mu laaj mooy dafa laaj tamit dal ak tey ndaxte aar fi mu nekkoon démo ma nga fa ba tey am na ci ña nga xam dañ cee juux rek waaw ñoom pour ñoom dañoo yaakaar ne. koy lan mooy théâtre carrément. waaw mu laaj la waaw théâtre li mu laaj la dafa laaj tarbiyu parce que ñun dañoo tarbiyu waaw nekkul la nga xam ne da ngay xëy def ko faa nga tarbiyu waaw comme taalibe ni muy tarbiyu sëriñam faa nga tarbiyu ba mu dem ba nekk ci yow waaw dafa laaj euh, dal dafa laaj tey dafa laaj tamit yaru xam li wax parce que nit ki nga xam ne saa yoo génnee di wax rek doomu aadama dañ lay déglu te ku ku ñëpp di nag war nga xool booy wax li ngay wax lan la booy defit nit ñi xam li ngay def lan la mais nekkul la nga xam ne du du métier rambax rambax moo taxit ku ci xëy rek dugg ci di ci rambax rambax loo ci gis ah teel rek dàmb naa rek ngay dégg voilà. su ma laajee yi nga bokk yëpp ban série moo la ci gën a marqué. waaw wax dëgg yàlla yi ma bokk yëpp euh, la grande pouvoir waaw moo ma gën a marqué parce que euh, ndaxte bon euh, yére la bu ñu ma sol ma sol rek mais maa ngi tudd Moussa Faty mu nekkoon la nga xam ne yére bu ñu ma loolu moo ci doon bon lu ma doon def la rek mu yére bu ma sol woon naa ko. mais mu nekk benn affaire mu ne souvent tey bu ma génnee mais rek paa xale yi ku ci nekk yaa ngi may topp naan ma mañi mañi mañi mere ma waa nag nit da ngay boo ci déggee ñu ne ñu ne boo ci réussir rek mooy day fekk euh, def nga la nga xam ne moo convaincre nit ñi ba nit ñi tam ne wax dëgg yàlla saa bi ñu ko jox def na ko quoi waaw waaw ok jërëjëf. le ziar bu baax waay. noo dundee tey journée mondiale du théâtre bi. waa journée mondiale du théâtre bi kontaan ci rek. waa ak mbégte ci te xam ne journée mondiale du théâtre bi. sunu journée la ñun artistes euh, comédiens yi waaw di ci am mbégte bu baax a baax a baax a baax a baax. loo ñu wax si théâtre tey boo boo ñu ko doon expliquer lan mooy théâtre. waaw théâtre tey euh, mooy li nga xamante ni dalay yee waaw dala yee parce que yee ñu bari parce que man mi ci dugg bon aussi gis naa ni yee na ci lu bari bari génne ma génne na ma aussi ci lu bari quoi waaw. ban théâtre moo la gën a marqué ci nga bokk. waaw théâtre yu ma gën a bokk yu ma gën a marqué mooy. Euh, Euh, bi ma bokk ci Siri Mariama waaw mooy bi ma nekkee imam bi waaw nekk fii koo xamante ni euh, sama jarbaat bi dañ ko dañ ko teg dil te man euh, kii ma ko quoi xaw ma ci dara loolu moo tax waaw waaw série boobu tamit série bu ma marqué la aussi waaw. ban message ngay lancé pour ki nekk ndaw nekk këram di suivre li nga ne mooy théâtre ndax pour am courage loo koy wax. waaw kii seetaan dama koy wax ni théâtre nekkul lu bon parce que dafa am ñoo xam ne dañoo yaakaar ne théâtre lu bon la mais théâtre nekkul loo xam ne lu bon la. waaw parce que parce que léegi am na dafa am théâtre ak téléfilm waaw xam nga dafa am théâtre ak téléfilm te théâtre ñi koy def am na si yoo xamante ni comme sunu suñu mag yu njëkk ya xam nga ñoom Baye Ili ñoom euh, kii góor gi mbax rëjëgey Baye Ili ñooñu théâtre lañ daan def waaw parce que boo ko seetaanee da nga dal da dan lay yee parce que mën nga ko seetaan yaag say njaboot ak say ak ak say ak say famille waaw mais léegi dafa am film yoo xamante ni léegi euh, da nga koy seetaan doo ko mën a seetaan nag sax say say say say say doom quoi waaw aussi aussi di ci yee xale di leen xam ni teyaatar luy yeeta la théâtre aussi luy luy luy defar nit ki la quoi waaw parce que liggéey la liggéey la parce que boo ci nekkee mën na la ubbil ci yeneen buntu yoo xamante ni daal mën na la dimbali te aussi tamit yeeta la da nga ciy mën a yee ci koo xamante ni dafay feebar danga ko ciy mën a dimbali sa xam comprendre bu meree mën nga ko dimbali moom mu reetaan affaire yooyu ku feebar tamit bu la seetaanee mën na aussi tamit mën na cee xaw a tane waaw lu baax la daal waaw di ci wax ne xale yi daal dañ ci jéem a góorgóorlu te xam ne lu baax la. noo maa ngi sant bu baax. noo dundee tey journée mondiale bi. waaw kontaan rek bëgg ndaxte même bu dul dara sax ñun lu ñu lu ñu xam ci aar wala fu ñu toll tey tontoo leyti moo tax ndax daf ñu jël boot ñu jàngal ñu aar jàngal ñu àdduna yar ñu kon tey mënuñu def lu dul kontaan ak bëgg lépp moom la daal. noo gisee théâtre sur scène ndax yaa ngi koy def. ba man nag euh, mun naa ni que bi ma duggee ci art bi yàggul te côté cinéma laa gën a ëpp li may focus que côté théâtre sur scène waaw. ban film moo la gën a marqué ci yi nga joué. bon man nag actuellement mun naa ne débutante la yi ma joué gum yëpp pratiquement nekkagul di daw. comme ñëpp rek comme ñëpp rek egg fi nit ñi yegg macha allah ñun dugguñu ci art pour xaalis dugguñu ci art pour siiw mais dañu dugg ci art pour dundal art. dugg si aar pour def li ñu suñu kilifa sant dugg si aar tamit par amour ak euh, comme ni ma la ko waxee bëgg-bëgg daal waaw. lan moo la inspiré ba nga dugg ci aar. amour patience sama passion la hmm. merci. lay siyaar bu baax a baax a baax di nuyu waa Sénégal di ah, baax baax si weeru koor gi di leen wax happy birthday to you képp kuy artiste comédien ak sax ku dul artiste comédien noo tey journée mondiale du théâtre bi waaw ah, journée la boo xamante wax dëgg yàlla journée ah, bu bu ñuy kontaan la ndax tamit journée boo xamante àdduna bi yëpp ñooy bokkandoo képp kuy comédien mooy ñooy bokkandoo feetandoo li nga xam mooy journée mondiale du théâtre mu nekk journée boo xamante journée a gën a góorgóorlu kontaan bu baax. lan moo dugal ci aar. waaw man li ma dugg ci aar bon man euh, aar bëgg-bëgg la boo xamante ni bon li ma ci gënoon bëgg mooy di reetaanloo doomu aadama. man aar dugguma ci woon nag ngir xaalis dugguma ci woon pour dara dama si duggoon parce que bon dama bëggoon di gis ay xale di reetaan dama bëggoon heure bu mooy def benn affaire gis ay nit di reetaan affaire nag foofu la ñu affaire bi toppee ñu ñu koy def ci ay école di ko def ci ay daaray ngoon ndax man ci daaray ngoon laa commencé mooy euh, Serigne Moustapha Sy waaw waaw waaw Moussa Sy diine yi fa laa commencé di ko def mu am loo xam ne éducation boo xam ne dañ ci da ciy veillé loolu moom a gën a dugal ci ba tax mu commencé nekk ci man alors mu apporter la lan aussi apporté na ma lu bari bari bari bari bari apporté na ma lu bari man wax dëgg yàlla su ma doon woon comédien dama koy dama koy xoolaat ndax tey li ma apporté lu bari na ndax tey connaissance rek moo ëpp lépp ci àdduna ndax may na ma ay nit te nee nañ ku am nit rek ñàkkoo dara may na ma ay nit may na ma lu baree bare may na ma respect may na ma wax dëgg yàlla foo xamante ni mënu ma fa woon dugg théâtre tax na ma fay dugg loo xamante ne tey jii peut-être su ma nekk woon artiste du yomb pour ma am ko mais théâtre tey jii yombal na ma ko bu baax a baax a baax a baax a baax ma ci sant waa na di sant bu baax a baax waa Sénégal. alors ñu ngi sa diggante ak Aba Sow coow li bari da ngeen am problème yaa ak bu TFM. Euh, <laughs> non amuñu problème man chaque jour dinaa dégg ku ma ne ndax Idi da am problème non amuñu problème man ak Aba amuñu problème amuñu problème Aba sama grand la sama xarit la sama lépp la amuñu problème sama nit la aussi. Euh, Aba ak nu mu mënti demee ak nu mu mënti demee ak nu demee man dama koy sant di ko gërëm nu mu mënti demee dama koy sant di ko gërëm ndax xam ndax ma koy sant di ko gërëm ndax euh, ki la jàngal ah moo la mën a jàngal lépp comprendre man Aba sama grand la sama xarit la sama lépp la kon moom dama koy du ma def rek lu dul di ko sant ngir yàlla baale di ma laaj loolu. mais tos nee na dëgg la suñu micro fii la ko Public SN TV nee na da ngeen problème yaa ngi <laughs> <laughs> tos yàqkat la <laughs> tos yàqkat la moom ñu ngi koy félicité bu baax ci ndogom yi passé xam moom tam ñu ngi koy félicité bu baax non ñun abaa ñun référence rek lañ ko mën a def moom ak ñeneen ak ñeneen ñu référence rek lañ ko mën a def liggéey nag day toll foo xamante ni ku nekk da ngay am instant boo xam ne dangay ngay wax dëgg yàlla itam demal sa bopp comprendre gars yi lu bëri ñu lu tax ñuy wax loolu gaalanoo stress gisoon nañ ma gaalanoo stress ba gaalanoo stress du doon gaalanoo stress dëgg ñu ma ci gis affaire yi di neex léegi nag ñu dem ba gisatu ma te liggéey liggéey loolu la bon liggéey euh, da nga ciy da ngay nekk ci benn affaire ñaan yàlla tamit gën a évoluer ñaan yàlla tamit tegaatwaat ci yeneen axe yu gën a doy waar lu moo tax nag ñun tamit xam nga teewul à chaque fois ñun dañ koy remercier dañuy dañuy dañuy dem ci ay Aba Show Aba Show bi passé man maa présenté affaire yi xam nga wax dëgg yàlla Aba sama gaañ la gars yi dañuy wax rek man Aba sama xarit la sama doom yàlla maa ngi koy ñaanal nag maa ngi koy ñaanal yàlla bu baax yàlla yàlla yokkal ko yokk yokk taxawaay mais am na ñu ne Idy dafa yëg si léegi idi dafay demal boppam idi li nga doon fay fee daa tuuti. waa yëg succès waaw mais sant yàlla loolu laay ñaana man maa ngi ñaan yàlla yëg succès bu baax wax dëgg yàlla. waaw waaw fayor ban. nga fay am bariwul moo tax nga ne <laughs> waaw xam nga àdduna moom àdduna àdduna ku nekk da ngay ñaan yàlla da ngay rêver grand. comprendre Sénégal moom bu ñu naan yaa ngi yëg succès rek mooy yaa ngi ci yoon bi quoi wax dëgg yàlla yaa ngi ci yoon bi man su ma neexee ne damaa yëg succès ndax tey su ngi jéem a def le tout pour lépp lu may tardé du ma ko def lépp lu may xamoon nag démb nga jàpp ne idi bu démb bi moo taxawaat fi yaa ngi yaa yaa ngi nax bopp man boo xamante ne dafa nekk si yoonu changé dafa nekk si yoon boo xamante pour évoluer kon nag ki naan ma idi daa yëg succès yëgaguma succès sax ba ci kanam tuuti di nga comprendre lépp dëgg la. kon yaa Aba liggéey tool nekk jeex na. maag Aba bu ma soxlaa nii dama koy moom man mii su ma ko soxlaa pour liggéey day ñëw pour liggéeyal ma man moom tam bu ma soxlaa damay dem liggéeyal ko liggéeyale rek tey bu ñu liggéey benn projet bu jeexee dañuy dem seet leneen ku nekk nekk si beneen affaire quoi mais man ak Aba moom du jeex. nuyu naa la. maa ngi lay fay. noo dundee tey euh, journée mondiale du théâtre. ah mais mbégte rek ndax nag euh, ku ne am nga sa bés. nous les artistes comédiennes bu ñu tànnalee suñu bés muy le 27 mars loolu képp ku nekk ci aar xam nga ko xam nga ni journée mondiale moom vingt 27 mars la journée mondiale du théâtre ñëpp xam nañ la le 27 mars la kon loolu mbégte la. lan lan mooy théâtre exactement su ma ko doon expliquer lan mooy théâtre. non définition bi nga bëgg ma éclairer ko moom dafa gudd. Ah, waaw mais li ëpp doole ci théâtre xool la. Euh, dama koy dégg ci sunu njiit sunu patron sunu lépp muy Leyti Fall muy wax ne artiste comédien dëgg xol ba day sell ndax ki nga xamante ni da ngay jàngale da ngay fekk lu nekk ci biir kër yi tilim nga fexe ko setal nga gis ay nit yoo xamante ne danoo bàyyante nga wax lu tax ñu defaru kooku loolu xol a koy def kon xol boobu di ko def nag li njëkk ëpp doole ci artiste mooy xol bu rafet xam nga tey du ñu fi gis ku mel ne Ibrahima mbay Soppe xam nga moom man rek lay topp ndax man la bëgg nga gis fi ku mel Ibrahima Mbaye Soppe gis fi Leyti faal euh, sama jëmm ju ndaw jii di éclairer mais li ma la mën a wax daal ci artiste comédien artiste comédien dëgg mooy xool ba day yaatu xool ba day rafet li ci ëpp doole loolu la ñëw naa fii di fi répéter pendant des années te jënduma carte de membre c'est parce que répétition verbale lay ñëw doon ko seetaan si bi ma demee ba xam ni fii li ma fi gis moom bari na ci bërëb yu ma dem mais li ma gis fii gisuma ko fenn muy Arcos Pikine ma ni nag naa intégré ci biir rek rafet jikko bi nan la la inspiré wala da nga bëgg maanaam di joxe message moo doon ko tudd rafet jikko waa xam nga jikko bu rafet du jënn jëmm ñun suñu bopp segam ay jigéen lañu mënuñu duppee suñu bopp yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam li nu mën a duppee suñu bopp rek mooy rafet jikko bi te rafet jikko bi du ñun suñu papa la ndax sunu papa moo ma daan wax à chaque fois njaay yaa rafet jikko nag léegi nag kàddu yooyu noonu rafet gu mu rafet ak neex gu mu neex nekk mbégte ci ñun ñuy def kéemtalaay kàttan pour suñu jikko rafet moo tax rafet jikko bi ban ban séquence moo la gën a marqué ci li nga xamante ne nga ko ci sa àdduna. bari na nag bari nag ndax lépp loo nga xamante ni yaa ngi koy def nit dajajeeg yow ni la li nga def nii mbégte mi ma ci àndal wala li nga def nii fii ma nekkoon yaa tax ma génn fi nii yaa tax ma mel ko yaa def nangam non loolu. ban message nga jox jeunes yi nga xam ne dañoo dugg ci aar léegi mais beneen la ñuy joué par rapport ak euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoom ñoo fi nekkoon comme say référence non bari na ñu fi nekk ñoo nga xamante ni pas des artistes comédiens ni artistes comédiennes ay acteurs lañu xam nga tey jii da nga ñëw fekk ko nga xamante ni day jaay ci mbedd nga woo ko ko dama am benn mbir moo bëgg a def te soxla woon la ci yow laa gis ci personnage bi kooku acteur la nekkul artiste comédien les artistes comédiens mooy ñi taxaw ci kaw seen di di jouer ñooñu ñooy artiste comédien yi ak artiste comédienne yi voilà jaajëf. feex feex waaw may maa ngi ziar. loo dundee tey journée mondiale théâtre bi. waa dund boo xamante ni sant la rek. ak euh, fekke woon nañu ko daaw ren ñu fekke ko. kon dañu wax alhamdulilah ala kulli aal comme yàlla def nañu fekk ko dañuy dañuy sant dèjà euh, mu nekk journée boo xam suñu journée la lu ñuy féete la waaye lu ñuy waxtaane itam nan la ñu mën a def pour suñu théâtre jëm kanam waaw. alors lan mooy théâtre exactement loo ñuy mën a wax. waaw xam nga théâtre moom mooy àdduna rek parce que tey jii euh, théâtre mooy li nga xam ne dafay dajale lépp mooy li nga xam ne moo dajale way moo dajale fecc moo dajale li nga xamante ni moom mooy danse danse mooy fecc moo dajale lu bare bare loo xam ne mooy àdduna mu lépp loo gis fii rek mën nga ko jël dugal ko ci biir théâtre bu ñu la doon tekkil théâtre moom mooy li nga xamante ne moom mooy moom mooy àdduna. lan mooy rôle ARCO ci Sénégal. waaw ARCO dafa nekk association yoo xam ne dañu am solo parce que mi ngi mel ARCO Pikine ARCO Guédiawaye Dakar Tëngéej ARCO di organisation yoo Kër Massar ah di organisation yoo xam ne dañuy doole théâtre dañuy yokk théâtre dañu am feneen foo xamante ne fa la ñuy yóbbu théâtre kon arko bu ñu xewlee tey organisation bi waa arko def waaye Pikine foo dem arko yi di célébrer théâtre bi loolu mooy wane ne arko luy dooleel euh, théâtre la. sa ban moo la gën a marqué depuis Mama tey nag. mooy bi ma naan ko sa ñaan gi daa diis <laughs> dinaa daanam. sa ñaan gi ah mais ñaan gi diisoon booy. <laughs> lan ndaw bi nekk biir këram war a def théâtre ay parents yaakaar ne baaxul ban message ngay non théâtre lu baax la mais il faut ñu organiser ko parce que damay wax ne théâtre dafa toll foo xam ne tey ji même autorités yi li ñu war a dimbalee ndaw ñi du leen du may leen xaalis du may leen dara mais rek ne nit boo ko bëggee dimbali doo ko may jën danga koy jàngal nu ñuy nappee te ren théâtre jamono fi mu toll boo bëggee dimbali jeune bi leen rek nga ko mën a dimbale muy formation parce que da ngay jeune boo xam ne peut-être du am niveau BFM du am niveau bac du mën a dem école des arts mais am na yëg-yëgu def théâtre te mënut a jotee peut-être ci benn Ibrahima Mbaye Sopé wala benn Kader wala benn keneen ak keneen koo xam ne ay professeur la ñu mën a def ci ñoom théâtre tey jii ministre bi li mu war a def mooy fexe organiser ba nga xam ñi yor xam-xam bi ak ñi ko soxla ñu organiser noo xamante ne ñooñ danañ mën a jot xam-xam bi pour mën cee jariñoo parce que théâtre bu nit ñi amee xam-xam bi rek danañ ci mën a liggéey mën ci am seen koom mën ci am xam-xam mën ci am réussir waaw jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax. loolu ne tey journée mondiale du théâtre. waaw euh, ak comme euh, chaque année ndax euh, journée mondiale du taat mooy suñu tabaski waaye nag tabaski amul xar de ay nag la ñuy rey ah ndax xar yi surul tax artiste mais muy loo xam ne euh, tamit bëgg nañ président bu bees bi gën ci defaat ay jéego ndax statut de l'artiste boobaak léegi ñu ngi koy jooy te war nañ ko mën am waaw ndem musiciens yi wala rappeurs yi wala ñeneen ñi ñoom ñoo am loolu. ñun comédiens yi war nañ am statut de l'artiste waaw donc euh, journée mondiale du si ci bis bu mel nii lañ ko mën a jooyee nga xam ne médias yëpp dañuy ñëw mu mel ne seen médias yi nga xamante ne macha allah ne ko nit ñi bëgg nañ ko ñu ngi leen di déglu donc euh, pour ñu euh, déggee ñu fii ne xam ne ñi ngi jooy statut de l'artiste pour que à ce que ne comédiens yi am loolu. lan mooy théâtre exactement pour nga définir ko nit ñi mën a xam. waaw ne ko théâtre ni ko nit ñi di définir man mën naa ko bañ a définir noonu parce que nit ñi dañuy wax ne c'est la vie de tous les jours man damay wax ne Dieu est théâtre n'est plus tard que Dieu lui qui est l'omniscient l'omnipotent l'omniprésent lui qui est la foi la voix le savoir et le pouvoir kon euh, donc moom mi nga xamante ni moom moo bind injil bi euh, andi tawret andi alquran nekk euh, moom kon nit du nu bind lu nu bindul duñu def mise en place wala mise en vie wala mise en scène bu yàlla deful waaw donc ñun dañuy on a fait que copier moo tax nit créé wul dañ ko créé moom waaw ne ko euh, lenn rek lay mën a def muy euh, day euh, orientation lay def réaliser waaw une waaw loolu lay def merci beaucoup restauration ñëpp a ci biir waaw ndog yi li ñu xamee rek mooy comme d'habitude Leyti ko def na la ko nit ñi xamee woon mooy ku bëgg aar la ku fonk aar la journée mondiale euh, du théâtre mu di ko def boobu dara du dara tey yàlla may ko mu koy def ba mu toll ni gis ngeen ko kon sant yàlla ak yonent bi la rek tamit ñun journée bi suñu journée la di ci bég bu baax a baax di ñaan suñu borom ñu koy wax mooy lan waaw théâtre mooy euh, vie tous les jours rek li ngay dund chaque jour rek moom mooy théâtre li ñuy ban message ngay lancé jeune bi nga xam ne bëgg na def théâtre toog këram te yaakaar na lu bon la. waaw li ma bëgg a wax jeune bi euh, daa nekk euh, bëgg a def théâtre toog këram du lu bon. parce que euh, buñ ko bonoonoon ni tey yaakaar naa ñëpp bëgg nañ mu baax parce que teraanga bu nekk tey nit ñaa ngi koy am ci aar yi Leyti Fall mi oote tey journée mondiale bi artiste Pikine fekk ko ci am na fu mu dem tey ci aar lépp lu mu am tey aar mu nee na amul beneen métier moom aar rek lay dox culture rek lay dox moom lépp lu am teraanga ci aar la koy exemple la maçon wut menuisier wut suudóoru defut dara ci aar rek lay dox kon ñoom xale yi laytu faara doole na exemple ba nga xam ne aar bi am na njëriñ gëm-gëm la rek ak benn yàqamti li ñuy wax aar moom du ëmb day xëy rek nga gis doom waa loolu mooy wax ji merci beaucoup ami fidèle internaute téléspectateur de Public SN TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon li nga xamante ne moom mooy journée mondiale du théâtre fii ci arco bu Pikine nga gis artistes yi nga xamante ne ñëw nañu fi célébrer li nga xamante ne moom mooy journée du mondiale du théâtre nee na mooy seen événement mooy seen fête moo tax moom rek la ñu am di leen jox rendez-vous incha allah rabbi ci beneen événement ma ànd ak sama caméraman Chimère jaa ngeen jëfati